suñu alliance bi entre SAEMS ak CUSEMS amul kenn koo xam ne dañ ko ko tëjal tëjaluñ ko syndicat gv g yi tëjaluñ ko syndicat wu G7 et ma fàttali ne ñu ngi ci G7 loolu aussi lu ñu war a leeral la ñun ñu ngi G7 ba léegi parce que boo leen di fàttaliku daal dañu nekkoon ci biir G7 mais jàpp ne ñun les syndicats du moyen secondaire dafa am combat bu ñu war a porter ñu porter ko parce que li nit ñi di fàtte souvent mooy bi ñu defee élection de représentativité bu ñuy dem bokki G7 ku nekk danga ñëw ak mandat wu benn collège kon collège yu moyen secondaire ñun la ñu porté woon combat bi daaw mooy les syndicats du moyen secondaire ren tamit lii nga xam ne moom la ñuy def dañ koy def au nom du moyen secondaire mais dafa am nag accord yu nga xam ne nii buñ ko xësee signé comme protocole ba def ko lu nga xam ne xaatim nañ ko ak nguuru Sénégal naturellement enseignant yépp lay concerné kon ren soo leen gisee ñu def doxalin wi mooy rek dañuy dolli li ñu defoon daaw parce que jàpp nañ ne wolof dafay wax ne euh, li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyeeti jig na la donc buñ ko defee daaw am ci ndam def ñuy neex ñu tàmbaliwaat ko ren parce que jàpp nañ ne am nañ ay forte convergence entre SAEMS ak CUSEMS su mën a tax suñu porté combat bi mais mu sotti loolu moo tax ñu defaat ko ren mais ñun amuñu divergence ak benn syndicat wala excluruñu benn syndicat képp ku bëgg a jàpp ci combat bi boo ñëwee alors ubbil nañ la suñu bunt ngir nga ñëw ñu porté kombaa bi alors ngeen waxaat poñ bu jëm ci euh, lycée Djignabo lycée Djignabo li fa xew ñun ñëpp yëg nañ ko di ko naqarlu parce que dañu ne école dañ ko tuddee cëslaayu réew école mooy temple du savoir mën nañ considérer que acte violence ak nature bu mën di doon ak maanaam lu jëm ci ay di taal ak di def lu ne ba mu des ñu jëmale ko ci l'école école kenn mënu fa def loolu terewul comme ñun informé nañ ñu ci loolu démb ñu xamoon tamit ne dëkk bi amoon na aw tàngoor wu fi doon xaw a am kon ñun si suñu responsabilité mooy laaj que ñu dem defi ay investigation ñu ngi ci ñun ñëpp suñu ay secrétaires généraux régionaux yi nga xam ne ñoo ñu toogal Ziguinchor ñu ngi def lépp li nga xam ne mooy investigation yu nécessaire pour ñëw wax ñu exactement lan moo xew foofu mais ak lu mën di xew moom dañu leen di wax ne ñu ci ñu dem dugg ci lu demee ni l'école di ko taal ak ku ko mën di def loolu moom dañ koy ñaawlu ba fi ñaaw yem parce que école comme niñ ko waxee mooy tabax nit kon liy tabax nit kenn mënu ko yàq kon loolu mooy suñu position actuelle buñ ci demee nag ba saytu bi génn ba ñu gën a am ay leeral daa ñu gën a ñëw wax suñu taxawaay ci loolu nga xam ne moo fa xew alors lu jëm ci ñu ne ñu lan la ñuy wax ci damay tàmbaliwaar rek lii euh, journaliste wa ci bilan wu Cheikh Oumar Anne ma ne mais ñun duñu wax ci bilan wu xëy na Cheikh Oumar mais dañuy wax rek moom bi mu fi ñëwee léegi li nga xam ne fa la fekk bilan boobu boo ko doon def da nga koy def moom bilan boole ko ci bilan wu Galoba ñoom ñoo ñëwandoo nga boole ci bilan wu soxna si dem pole formation professionnelle technique muy Mariama Sarr ñoom ñëpp ñoo si remaniement bi passé lañ leen teg seen ay poste kon tey boo doon xayma danga naan lu jëm ci wàllu jëmmal gi ñu war a jëmmal déggoo yi ñu xaatimoon ñoom seen bilan fi mu toll nii zéro la sero defuñu dara parce que boo demee nga xool daaw biñ koy xaatim fi mu yemoon ak ministre yi dem ñoom foofu la yem ba léegi parce que ba léegi situation décisionnaire yi changé wul kon ñoom defaguñ dara boo jëmee tamit lu jëm ci wàllu maanaam tàggat gu ñu war a tàggat wax naa leen sànq lu tax mu tàggatémbe yow nga yor ministère ñu yokkal la sa budget yokk si yokk bu jéggi dayo mu jóge six cent trente cinq milliards dem huit cent soixante onze milliards nga yoreel Pastef enveloppe bu trois cent millions bañ na doo ko fay te ñoo ñu waroon tàmbalee jàng octobre nga bloqué seenum njàng octobre novembre décembre janvier février mars avril ñëpp xam nañ ne année académique dafa am benn période boo xam bu ko weesoo dañ lay def li ñuy wax forclusion parce que année académique dafa am ay norme nombre de mois yoo jàng war a jàng nombre de semaine fi mu toll nii dépassé na ko ak ñooñ fayul xaalis si ban yoon na ko teg xaalis boobu gafaka ci gafaka réew mi la jógee donc dafa war a dem fay loolu ngir ñooñu mën a jàng li ñu war a jàng parce que loolu ñoom bu ñu ko jàngee ci système bi lañ koy delloo ci qualité système bi moo taxoon sànq may wax ne jëmm jooju maanaam qualité système bi intéressé wu ko ay tukki bu demee euh, commission xawma ay séminaire ay yooyu du loolu na nañuy yoree ministère loolu moom d'ailleurs dem ko niroole mook sëñ bi ñuy wax galoba ñoo yem galoba moom defe moom moom mooy battre record bi parce que voici un ministre boo xam ne xamul sax maanaam tey liñ ko dénk lan la parce que loolu mooy le poumon du système mooy le ministre de la fonction publique parce que ministère boobu bu ñu la nee carrière liggéey katu fonctionnaire seen fonctionnaire seeg ñëpp fa la ne ñu ne la yow lañ ko dénk te gisaguñu nga jël sa responsabilité pour def yeneen ministres yi daan def mooy boo gisee ay préavis yi ñu déposé ay plateforme au moins am na benn rencontre élémentaire boo xam ne dañ ko bind ci loi 61 33 ñu ne ministre de la fonction publique fu mu jotee ay préavis syndicat dafa am obligation woo leen ci mennum ndaje ngir ñu xayma loolu nga xam ne moo tukkee ci préavis xam ngeen kañ la ñun ñu déposé woon syndicat yenn yi ñu ngi déposé woon décembre ñiy déposé seen préavis janvier ñiy déposé février ba tey jii ñuy wax ak yéen maanaam diime Galloba convoqué wul rencontre boobu xamul kon les principes élémentaires yi nga xam ne ñoom ñooy régir le fonctionnement du ministère kii la bu la ko woowee tey mu ne la mu ngi Dubaï nga woo ko mu ne la mu ngi boor bi nga woo ko ma ne kon moom xam naa day mujj def son rêve d'enfant day jël avion di wër di wër bu sonnee nag dina ñëw toog parce que day miir bu kon ne bu kon ne day miir te boo miiree moom dootoo xam koy dossier yi noo koy gérer voilà foo mu ñëw ñibbi si liggéey nga toftal ci Mariama Sarr bettuñu parce que gisoon nañ lim liggéeyoon fële yow fonction publique ak li fa tagoon yépp si ay dossier ñu jëlaat pàcc bi ëpp solo nag tiim réew muy la formation professionnelle technique nga xam ne mooy métier yi moom mooy tabax réew parce que ñëpp ji am métier ñoom ñooy def koom-koomum réew ñu ne moom lañ ko dénk moo tax loo leen ci gis fu mu dem ak président am président bi ko laaj analyse ana lii sa nangam ana lële ana parce que dara matul foofu te jàpp nañ ne moom aussi ci ñi tàggatee mbel yëf yi ci la bokk léegi nag ñoo ñëpp boo leen jëlee day jot que ñu wane kon bilan bi ñu leen di defal ñoom ñett ñëpp mooy ñoom ba léegi buñ doon def bilan à mi parcours dañuy wax ne ñoom dañu bloqué accords yi defuñu fi dara bi ñëwee léegi loolu ngeen bind ko que ne bilan de ces trois ministres là est un bilan parce que depuis que ñu fal leen ba léegi ñun gisuñu avancé ci accord yi alors léegi nag lu jëm ci wàllu jàpp gi gi nga xam ne jàpp nañ ko ay collègues jàpp ko tamit ay élèves gis nga foofu dañu bëgg mu leer naññ naññ naññ que muy SAEMS muy CUSEMS ñun duñu xeex xeex politique amul benn politicien bu mën a instrumentaliser suñu ay appareil parce que tey boo demee jël SAEMS wala nga jël CUSEMS am na ci ñoo xam ne xëy na doole bi ñu am sax parti politique yi fii di wax nii amuñu ko kon kan moo yaakaar ñun ñu xam loolu yor li ñu yor di liggéey ngir ay enseignants dernier recensement wane ne yaa cent douze mille enseignants au Sénégal boo demee ci élection de représentativité cent douze mille la ñu wax nga am doole boobu ba pare jël doole bu tol noonu di ko jox benn politicien ne moom ngay xeexal wala kooku xalaatuñ ko tey xalaatuñ ko suba ñun suñu xeex lenn moo ko yëkkati ak ak yelleefu ñi nga xam ne ñooy suñu naataango yi ñu fal fala yem ci ak nag ak yelleef yooyu daf ci bokk waaw lu am solo muy li ñuy wax les libertés collectives et individuelles kon bokk na ci ay liberté yoo xam ne constitution moo leen ko jox bu ñu sentiree ne nguur gi mu koy salfaañe dañuy taxaw ne nguur gi déet lii warul mën na bokk na ci dem di rëbb ay jàngalekat ci biir espace scolaire di leen jàpp duñ ko nangu loolu na leer ñëpp dégg ko bokk na ci di rëbb ay ay jàngalekat ak ay élèves tamit ci biir espace bi loolu la ñu bañoon te moom la ñuy bañ ba tey léegi nag ñun ñu jàpp ne bu ñu nekkee ci réew bu ñëpp buggee dem ci li ñuy wax dynamique d'apaisement maanaam ak dal bu ñu bëggee moo am ci réew mi kon dañuy jàpp ne place u jàngalekat du prison du kaso bu ñu bëggee ab dal am ci réew mi dañ fàttaliku ne place u élève du maanaam ca kaso ba rawati nag nga jël ay bomb yu ma xamul di ko dóor élèves yi ba am ku ñu pattal bëtam kon loolu na ko nguur gi bàyyi nañu indi ak dal ak dal ci boor yëpp lay jóge ñoom ñoo ko jiite d'abord ñoom nañu indi dal wane ne fi mu toll nii on est dans une situation où kenn mënatul tënk liberté yi waaye dañuy encadrer liberté yi loolu moo xew léegi nañu bàyyi nit ñi war a def seen marche ñu marché waaye ñu indi ay doole euh, force de l'ordre ñu encadrer leen ba duñu yàqal kenn dara loolu la ñu wax parce que dañu ne nous sommes soumis à un régime déclaratif kon képp kuy marché nga xam ne c'est un droit bu nekk dans la constitution defal waaye bul yàq ñu indi ay force de l'ordre ñu encadré leen kon ñun loolu mooy suñu taxawaay li ñu taxaw mooy taxawaay xeex syndical la par rapport à ñooñu di ñu jiiñ ñooñu di jéem a wax ne ñun dañ xeexuñu politique tey ñu ko suba li ko waral mooy mais président yii yëpp ñun bi ñu tàmbalee xeex politique yàgg na abdu Diouf fii la fekk syndicat yi bàyyi leen fi dem bu ñu jëlee suñu kaaw syndicat surtout ak bu ñuy nga dolli si Ablaye Wade ñëw na dem kon Macky Sall aussi du tey moom si moom la ñuy yem dañuy jàpp ne ëllëg aussi dañu war a préserver ces outils pour continuer di défendre ak ak yelleefu jàngalekat yi donc du ñu dugg si benn xeex politique mais nag dafa am lu ñuy wax un combat citoyen muy combat pour la préservation des libertés individuelles et collectives si loolu la ñu nekk nekkuñ ci leneen mooy tëj nag pour wax ne euh, fi mu toll nii toll nañ foo xam ne fii il va falloir que ñun ñëpp ñu jàpp ne xeex bi ñu sumb nii am na lu nga xam ne nii dañ koy xaar te lu jàmp jàmp jàmp jàmp la mooy ñu convoqué commité de suivi des accords bii passé ne woon nañ dañ koy convoqué mais ñoom ñoo def exprès bàyyi ba le 30 ñu xam ne dëkk bi day tàng jër ñu ne si la ñuy convoquer le comité de suivi des accords ba pare paradoxalement ñu dem jël seen ay rajo ak seen télé ba pare wax ne cours du am ci benn école ñu ne loolu day tey xel parce que le 30 boobu ñëpp xamoon nañ ne amoon na des possibilités que dëkk bi xaw a am nu mu yëngatoo kon ñun ñoo leen wax ne nañu xool date bu gën a baax te mu jàmp ñu convoqué comité de suivi bi ngir ñu mën a xool ci yan yoon la ñu war mën a jaar ngir jëmmal tey ci nu mu gën a gaawe déggoo yooyu nga xam ne moom lañ xaati moon ak ñoom loolu nag loolu moom ñun moo ñu yëkkati leneen yëkkatiwuñu lu jëm ci wàllu tamit li suma naataango doon wax sànq muy dagg yi ñuy dagg loolu dañuy fàttali ne amul genn tëralin bu ko mën a expliquer parce que boo jëlee tey nga dem ci C95 muy convention C95 dafa wax clairement naka la ñuy daggee def retenue ci salaire bu dee nit ki dafa grève xam nga bu ñu seetloo ni nii SAEMS nii CUSEMS mosuñu grève ba pare ne bu ñu kenn dagg waaye ak cac dañuy wax mu leen ak càcc akub dagg bokkul am na benn sax pro euh, euh, IA boo xam ne dañ ko laaj moom mu ne dagg booy dagg day yegg ba ca yax ba moom waxul loi mais nee na dagg moom da ngay dagg ba maanaam fekk salaire koo xam ne kii tey moom permanent la wala nga fekk salaire koo xam ne kii mu ngi niveau central nekkatul dans les classes wala nga fekk saleeru tamit jàngalekat bu demul grève am na jàngalekat yoo xam ñoom dañ lay wax ne duñ dem grève waaw ñu dagg leen loolu fu ñu ko teg amul benn loi amul ak càcc la gu ñu organiser goo xam ne gii tey ñun loolu mënuñu dentuloo gannaaw day gën a tax ñu sànjaafu leen ndax ñun jàpp nañ leen lu dul dëgg du wëy lu dëgg du wëy loolu moom buñ ko xamee nañu si noppalu ñuy wax nag ne loolu daal la ñu amoon tey bu ñuy war a échanger ak di leen gërëm di leen sant si seen teewaay jërëjëf.